yéen a ngi teewlu info 221 chemin de la libération doon nag yoon bu bees bi nga xamante ne rek nag ñi nga xamante ne ñoo féete ci F24 ak FRAPP moom la ñu jël appel mobilisation bi nga xamante ne rek fas nañ ko amal daal di nañ ci addu président Macky Sall jot na ci fond waaye tamit ci dictature bi nga xamante ne mi ngi koy def askanu Sénégal manifestation pacifique bi sax daanaka fii ñu prévoir ni ki suba nag samedi moom ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août atum 2023 doon nañ ko nag bëgg amal lu bëri ci département yi nekk fii ci Sénégal waaye nag. jot nañ ko euh, jotaguñ ko tere plateforme nag chemin vers la libération nag ñoom fas yéene wu nag daal di banque seen i par rek ñu àdduwaat euh, dawal nguur gi waaye itam àttu rek président Macky Sall ci li nga xamante ni bokk na ca lépp loo xamante rek mën nañ ko def rek faw mu ut yoon boo xamante dina leen gàllankoor waaye bi la yoon nag euh, pour la libération mu de Ousmane Sonko moo tax ñu bàyyi Ousmane Sonko bàyyi képp koo xamante ne ab détenu politique la plateforme boobee loolee tax ñu tubbee ko chemin de la libération ñu ngi ci nag ak sénégalais yëpp ak képp koo xamante ne nag bëgg nañ ci fas nañ ci àdduna ak lu jëm ci conseil casserole boo xamante ne dañ koy invité dañ koy fas yéene amal fépp ci biir diaspora bi ak fii ci Sénégal ci guddi boobee sax nag ba tey jii rek nañu comme niñ koy waxee na ñëpp jóg rek fas yéene ginnaaw tere ñi nga xamante ne mag yi taxaw nañ ci tere yooyee sax duñ ko daal di àddu mu nekk kàddu yoo xamante ne duppee na cay ci jot na ci jot na média ñoo fësal bi lee xibaax jàpp rek ne jot na nag ñu daal di kuréel gi yoon bi pexe bi waaye tamit naka lañuy def ngir taxawaayam ci waxtaan bi fas yéene génne ñi nga xam ne ñu nekk ci kaso bi lu toll si nag ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru ut bile la fas yéene nañ koo amal jot na nag ñu daal di génne képp koo xamante ni mi ngi ci kaso bi te ñu la noot la dugal ci biir rawatina nag Ousmane Sonko duma ci génn kenn du ci des na si ñëpp àddu ngir rek ñu amal chemin de la libération jot na média moo daal di fësal bi li article àddu ci rek ci euh, suba si nga xamante ne nag ñi di waa F24 ak FRAPP fas nañ koo amal orientation boo xamante ni xaaruñu sax ku leen ko jox waaye nag la ca mën a nekk rek nañu xaar ndax préfet du génne ab arrêté boo xamante ni dina tere yile manifestation